daa leen ko wax di yàgg naa leen ko wax da ngeen am da nga am taw dara am ñoom ci xas am xaas la ñu am te ngeen dund ci fàggu ko bale xaas xaas ngeen am waxuma taw feex taw feex na waaye ñun xaas ngeen am. waaw incha allahu kon bala ngeen di teewlu rek xasida googu su ko defee kon mu mel nii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 day yebal ay malaaka yu koy sàmm te waxtu wam ko jàngee suñu borom dana ko musal ci géppuk seytaane ay malaaka mala day yebal ay malaaka ñi di ko sàmm te jàng ko jàng fu mu mën a jëm rek ci surna boobe dañ koy dañ koy bindal yiw ci jàngim ko jàng ba ci njakk mooy wala yauduhu hifsuhuma wa huwal aliyyul azim te mu ngi ci ayatul kursi suratul baqara ba ca topp ma nga ci suuratul yusufa fallaahu xayrun hifsan wa huwa arhamu rahimin benn ba ca topp mi ngi ci suuratu raxti lahu muxaaqibaatun min bayni yadayhi wa min xalfihi yaxfasuunahu min amrillahi ba ca topp mu ngi ci suuratul hijri inaa naxnu nasalna sikra wa inaa loolu xaafisona ba tey ba ca toppaat mi ngi suuratul hijri te mooy wa xafisnaaha min kulli saytaanin rajimin bi ci topp mi ngi ci suuratu saafaati te mooy wa hifsan min kulli saytaanin maaridin ba ca topp ma nga ci suuratul wa hifsan salika taqdirul azizil alim lii mooy juróom-ñaari ay yi nga xamee ne moom la ñuy tuddee ayatul hifsu maanaam boo ko jàngee yàlla ci boppam day yebal malaaka yu lay sàmm kenn du la mën a lor waaye musal la ci bépp seytaane waaw ayatu hifsu lañ ko tuddee ni yàlla wëttee xaras mu nekk ci kattanam yàlla wëttee ko kursi mu nekk ci kattanam yàlla wëttoo ko asamaan mu nekk ci kattanam yàlla wëttoo ko suuf mu nekk ci kattanam yow mi jàng aay yi noonu la la yàlla di wëttoo waaw noonu la la yàlla di wëttoo ci saayir ak baatin mu tàmbali ne bismillahi sos na ma sama wax ci tuddu turu buur bi arahmaani buur bay xéewalaa kon bépp mbindeef ci àdduna arahimi buur bay ajiram ku ko soob ci alaxira moo tax mu tàmbali ko bismillahi rahmaani rahim mu ne maa ngi tàmbalee ci turu suñu boroom yàlla muy xéewalaa kon ñëpp ci àdduna waaye tey ajiram ku ko soob ci alaxira wala ya ooduhoo yàlla moo du diis mu ko xisuhuma seenu wëttu maanaam wëttu xaras ak kursi asamaan yéeg lépp lu mu sàkk yàlla moomu du ko diis mukk waxoo moom yàlla moom al ali mooy aji kawe ji al azim te aji màgg muy rëy rëy kursi lu muy rëy rëy te boo jëloon kursi ak asamaan yu juróom-ñaar yëpp nga sànni ko ci kawa xaras dafa mel ni jaaru ni muy tuutee noonu lay mel ci kaw xaras kon xaras rëy na te yàlla ne maanaam wëttu leen duma dis mukk yow na waxoon naa la boo yenoo ab xeer rek wala a bool bu yàggee nga toqe daa di sonn tëral ko yàlla nee na moom xaras lu muy rëy rëy kursi lu muy rëy rëy asamaan lu muy rëy suuf lu muy rëy rëy ñëpp ci am wala ya odoho di ko diis mukk il suuma seen wut mooy dem ba yàgg mu toqi sonn déedéet moom yàlla alaali mooy aji kawe alaasi mooy aji màgg ji borom kattan lu màgg li mooy borom kattan li nga xam ne mooy borom kattan lu kawe li te kattan du ko féete kaw waaye màgg itam du ko kaw moom suñu borom subhaanahu wa taala wala yoodoo xif suuma wala lu lasim borom xam-xam yi xam ayatul kursi sax bu ñuy jàng ayatul kursi buñ ci yeggee dañ koy bamtu ñetti am na ñu koy bamtu juróom-ñaari yoon maanaam ñaan ci boppam ñaanu ayatul kursi boo koy ñaan boo yegsee foofu da nga ko war a bamtu yi odoo hifsu ma wala dul asim ndax tolluwaay la euh, nettali nañ ci waa joo xamee ne daraan gis ci biit ay nelawam ay mbir yu koy tiital lool mu ñëw ci lenn ci gaay yu baax ci sëriñ si yi nga xam ne dañoo xam wàllu xam-xamu tasrif jàmbat ko lu muy gis ci ay nelawam sëñ bi digal na ko sëñ bi digal ko na ko boo demee ba tëdd sa rek waxal a'uuzu billaahi min seytaani ji muslu ci yàlla ñetti yoon jàng ayatul kursi yi ñetti yoon waaye boo yeggee ci wala yi odo yi suuma wala andi asim na nga ko bamtu bi ko sëriñ bi digalee loolu ba mu demee ci geneen guddi gi mu nelaw gis ne lam doon jàmbat ci ay nelawam yëpp ak xat-xat lam daan tiit ay nelawam yëpp dindeeku na ba set wicc dindeeku na ba set wicc ruwiya an baxdim annahu kaana yansuru fi nawmi umuran wa asyaa mufassa'atun fa ataa ila baxdi saalihina minal masaayiqi arbaabi tasrif wa sakaa ilayhi maa yajiru fi nawmi fa qaala lahu isaa ataytu ila firaasika fa taawas billahi mina seytaani rajiimi dégg nga ndax am na ñoo xam ne duñ nelaw nelaw naflaay nelaw xat xat xat xat rek ci la ñuy nekk wallaay laa sim lii nag da koy dindi mu ne ko nag isaa ataytu ila firaasika fa taawasu billahi mina seytaani rajiimi salaasan waqaru ayatul kursi salaasan fa isaa wasaltu ila qawli taala dégg wala yaudu hifsuma wala aliasim kooku fa kararaha salaasan nee na war na ma fa innaka taamun bi ma tajro fi nomika waa ji ne ba ma ko waxee fa faala rajula saalika fa la muy jët say an yuf sonko fii naw mi saalika mi ma kaan yajiduhu nee na ba ma sëriñ bi digalee loole nee na ma jàng ayatul kursi ba yegg ci wala yaudu hifsuma wala bam tu ko ñetti yoon ba ma tëddee nelaw gis naa ne la ma doon tiit sama nelaw yëpp dañ na ba set wicc baat la yu keemaane lu ne la ci borom xam-xam di liggéey sax mooy wala yu odo hifsuhuma rek wala yu yaasi waxuma sax ayatul kursi yi waaw rek lañ ci liggéey ñoom. ba tey ku ñuy wax sax euh, asayqi Muhammadul Xaqi Annaasili defaloon na ko ijaasa benn waay boo xamee ne waa ji ñuy wax Alhaji Ibrahim dañoo nekkoon ci tukki ci jamono nawet ngelaw lu tar dab leen càll bi. dégg nga taw bi di wàcc ba nga xam ne sax glace lay wàcc moom taw bi taw bu tar dem ba jaww ji kenn gisutul jant gisuñ dara ñi dem ba yàgg nag ñi tëlee dox mënatuñ dox te yoon wi réer nañu nee na nag ci la ñu sant ñu jàng ayatul kursi benn yoon waaye bu ñu yeggee ci wala yauduhu suma wala aliyyul aziim ñi bamtu ko 70 wala yauduhu suma wala aliyyul aziim ñi bamtu ko 70 nee ne bam ñu ko digalee bañ jàng li ko tàmbalee ci allahu laa ilaaha illal qayyuum ba ci walaa yoo doy suma walaa lu yaasim ñi bantu ko 70 bañ ko defee rek yàlla hubbil ñi jant bi gisatuñ taw gisatuñ dara ba kere ñi yegg ci dëkk bu ñu jëm te xam xam nañ yoon yi te booba kat dañoo réeroon xamuñ yoon yi ngir taw bu bëreeg ndax taw bi dem na bay wàcc ay glace ak lépp ak ngelaw lu tar kenn xamul fooy kenn xamul fooy fooy fooy xaw mu digal ñu nag nañu jàng leen ay tukkute waaye bu ngeen yeggee ci walaa yoo doy suma walaa lu yaasim neen ko bamtu 70 nee na biñ ko bamtoo ngelaw laa ngi rijj mënoo gis dara waaye bañ ko jàngee rek la yàlla la la la yàlla dindi xiin weeg lépp jant bi daal di génn leer nañ dégg waaw ndeysaan te loolu yëpp nee na nag ba ko defee nag ñu yéemu ñu yéemu ci lool mbir moomee waaw te laataa koy jàng toow bi mu ngi ñu wër di wàcce glace lépp waaye biñ ko jàngee rek gis nañu gisatuñ dara waaw mu ne nag isa hajjastum an tahsilil matlubi aw an daf'i sari faqro ayatul kursi yi bi haasa tartibi yusiru laahu matlubukum wa yudfahu mahsurukum wa yudawamu alayha fi sa'iri al ayami maratan wa yukraruha wala yudohi suma wala liasim maanaam 70 moom da koo bañ sax ba joxe ko ngir ngir kemaan gu ci xewoon noonu biñ nekkee càll bi tawte mu ne lépp looy sàkku bëgg koo am lépp looy ragal bëgg koo joñ jàngal ayatul kursi yi lépp loo bëgg yàlla yombalal la ko wërsëg ak lu mën a doon rek nee na jàng ko ci tartil bi bu dee looy sàkku la danga ko am bu dee looy ragal suñu borom musal la ci. mu ne saxal ko rek ci mboolem bis yi bis bi nga jàng ko mu ne waaye nag booy seet si wala yi odo yi suma wala da nga koy bantu 70. kooku loo bëgg rek mën na ko ak lu mën a loo bëgg a teggi yàlla teggi la ko loo bëgg yàlla yombalal la ko jot ci yàlla defal la ko. fexe rek sa bis yëpp saa bu ne rek soo xëyee jàng ko ayatul kursi yi ngay jàng ba yegg si ci wala yow do hisuma wala aliasi maam benn ayatul kursi lay nekk de waaye walaa yi audo yu suma wala lay ngay bamtu soixante-dix fois kooku loo bëgg dàq rek wala nga bëgg koo ñot rek saxal ko bis bu ne rek moom dafa bañ ba joxe dog boobu kon walaa yi audo yu ma wala lay moom wax naa la lu ne la ci borom xam-xam yi di def lu ne lañ ci mën a téye lu ne lañ ci mën a jat ku ne lañ ci mën a wëttu ku gis ak kuñ gisu ci saay rek baatin mu teg ci falaahu xayrun hifsan wa huwa arhamu rahimin moom it ci sóoratu yuusufa la nekk ba tey Yanqoob rek moo ko doon wax ay doomam ndax bi ñuy ñëw misra ngir di def lu ñuy wax njëgg si ndax amuñ dund seen dund jeex na dañoo sàkkoon ci moom Bunyamin nañ ko sàkkoon sa Yunus Yusufa ba sànk ko dégg nga seen bàyyi na leen hal amanukum alayhi ila kama amintukum ala aqihi min qablu falaahu xayrun hifsan wa arhamu rahimin aaya ji la joo xam ne daal day dox ci wàllu kaaraange waaw am na ñu jàng nak ci borom xam-xam yi bu dee ci wàllu ahlul basara wala kuufa ñoom ñu ci ëpp la ñuy jàngee duñ wax xifsan waaye xaafisan waaye boo ci jàng rek baax na wutee jàngilee rek waaye jàngin yëpp baax na falaahu xayrun xifsan am na ñu koy jàng falaahu xayrun xaafisan li ëpp ñuñ kuufa ak basara ñoom loolu mooy seen xeeti jàng ba ci waa Madina sax ahlul Madina ñoom xaafisan la ñuy jàng falaahu yàlla xayru xifsan mooy ngën ci aji wut boo defee xaafisan ba tey loolu firi mooy ngën ci aji wut wóote moom yàlla moomee arhamu rahimina moo dàq yërëm wa yërëm ñi képp kuy wëttu yàlla la dàq wëttu te yàlla na muy wëttoo ak yow na ngay wëttoo bokkuñu gis nga yàlla moo wëttu Yuusufa ba ko dégg nga dégg nga te xam ngeen ne walaay la bi ko sànnee ca teen ba mënoon na faa faatu waaye yàlla moo ko wëttu ci kaaraangeem dañu di ko wëttu ba mu yore nguurub Misra dañu di ko wëttu ba gisanteeg woy juróom wu góor ak wu jigéen kon kooku wëttu yàlla rek kon yàlla mooy ki aar mboolem yonent yi yonent bi mos yónni rek kooku xaafis la ci yow moo la sàmm ndax bu la sàmmutoon ñam la yebal mën nañ laa rey ndax def nañ la jëf joo xam ne wala wax nañ la loo xam ne mën na laa rey waaye yàlla moo la moo la sàmm kon falaahu yàlla xayru xaafisan mooy ngën ci aji wutu wa huwa te moom arxamu raaximiin mooy ki dàq yërëm way yërëm yi waaw moo leen dàq yërëm ñoom ñëpp kon gis nga ko fa huwa xayrul xaafisin mooy li man araada xafisoo yàlla kum na mu wëttu ko ah, kooku bu la wëttee kenn manut laa lor waaye wa arhamu rahimina bi man araada rahmatu ba tey kum na mu yërmandem bu la yërëmee kasaaleyka na ko noonu kenn mënut dindi yërmande ja kon fa laahu xayrun hifsan wa arhamu raahimiin moom it aay la yoo xam ne dafa bokk ci ayaatu hifsi yi aay yi ñuy wuttoo dara ak lu mu mën a doon rek borom xam-xam bi dañ ko ci liggéey moo xam kii wuttoo palaasam kii wuttoo këram ay yëpp dañuy dox ci wàllu loolu ndax noonu la tudd wala ki nga xam ne dafay wuttu boppam wala nga takk ko ngir aar sa bopp wuttu sa bopp suñ borom musal la ci sa yaatiin yëpp nit ñëpp ñëpp aay yi ba day dox ci loolu mu teg ci lahu muhaqibatun min bayni yadayhi wa min xalfihi yaxfasuunahu min amrillahi googu aaya moom mi ngi nekk ci suratu rax di moom mooy aaya fukk ak benn suñ borom day wax rek lahu muhaqibatun min bayni yadayhi wa min xalfihi yaxfasuunahu min amrillahi maanaam yàlla kenn ku ne booy dox boole na la ñaari malaaka malaaka mi su fekkee da ngay dox mi ngi topp sa gannaaw ñii mi ngi topp sa kanam mi ngi sa kanam su fekkee da ngaa toog bi bii mi ngi toog sa ndeyjoor bii toog sa càmmoñ bu fekkee da ngaa tëdd bii mi ngi toog sa tànk bii mi toog sa bopp loolu rek la yàlla di wane waaw nga xam ne noo noo mën a noo mën a doxee rek wala nga toogee ko wala nga tëdde ko malaaka yi dañuy soppi jotaay noo mën a soppee jotaay rek malaaka yi soppi jotaay moom it boo taxawee bi bii topp sa gannaaw bi nekk sa kanam boo toogee bi nekk sa ndeyjoor bi nekk sa càmmoñ dégg nga naka noonu booy dox ak lépp boo tëddee itam bii nekk sa bopp bii nekk sa sa tànk maanaam muaqibatun mooy yàqu bu baax duhum baax dan maanaam aku ak kuutaay ak wuutalante min bayni yedde ci kanam nit buy dox am na malaak muy nekk ci kanam wa min xalfi ak malaaka mu nekk ci gannaawam yax fa soonoo ñooñ danañu ko wëttu min amrilaay gis nga ci ndigalug yàlla ci kàttanug yàlla waaw kon kenn ku nekk booy dox na la wóor na la am na malaak mu nekk sa ganaaw na la wóor na am na malaaka mu nekk sa kanam ñoom ñoo lay sàmm naka noonu loo def itam danañ ko bind kat am na malaaka yi yàlla wakiil ci yow loo xam ne kiraaman kaatibiina loo mën a def danañ ko bind. kon lahu subhaanahu wa taala malaaikatun yanxabu baxduhum baxdan ala al insaani fa yaati baxduhum bi layli wa baxduhum bi nahaari yaxfusuuna al insaana bi amrillahi min jumlati al aqdaari allati kataba allahu lahum man huwa anhu wa yaktubuuna axwaaluhu wa axmaaluhu kon gis nga ko ni nga xamee ne noonu lay wuutalee guddi gi ba mu neex ko. mu indi bëccëg te kenn xamul fu mu dencoon guddi ba yàgg mu indi bëccëg kenn xamul fu muy denc bëccëg ba yàgg mu indi guddi noonu la amee ñaari malaaka yoo xamee ne bu nit ki dox bii mi ngi topp ci gannaawam bi mi ngi topp ci kanamam. kon loxo ñeen na ko muhaqabaatun malaaka yoo xam ne dañuy wuutuwante min bayni yadayhi nekk ci kanam jàmbi buy dox wa min xalfihi wala ñu nekk ci gannaawam bii nekk ci kanamam bii nekk ci gannaawam loolu yëpp yàq fa soonoo dara ndigul yàlla kon kenn ku nekk yàlla yebal na malaaka yu lay wëttu ci waxtu ne di la sàmm ci waxtu ne kon loolu du jaas moo tax lam ci teg inna laa laa yuqiru maa bi qawmi ataa yuqiru maa bi anfusihim boo melee na war a mel nag aar sa bopp jéem a aar sa bopp bañ a soppi sa bopp yàlla sàmmal la boppam boo soppee sa bopp nag bañ aar sa bopp bañ a wutal sa bopp kaaraange naka noonu yàlla sa bopp. inna laa laa yuqiru maa bi qawmi ataa yuqiru maa bi anfusihim yàlla nee na du soppi aw nit mukk lu dul ñu soppi seen bopp dégg nga lu seen bopp kon nit bu melut na wara a mel rek mooy soppi na boppam waaye yàlla moom du soppi kenn waaw lu bon loo nekk rek yaa fa xirtal sa bopp topp sa bakkan képp waaye yàlla moom yebalul la ca bëggul nga jëm ci itam nag kon lahu muhaqqabaatu min bayni yadayhi wa min xalfi yanfasunoo yàlla yebal na ci yéen ñaari malaaka yoo xam ne dañuy wuutuwante bu ngeen di dox bii nekk seen kanam bu ngeen di euh, bii nekk seen ganaaw bi nekk seen kanam bu ngeen di dox bu ngeen bi bii nekk seen bopp bi nekk seen tànk bu ngeen bii nekk seen ndeyjoor bu ngeen toogee bii nekk seen càmmooy kon wa min xalfi yaxfasoona min amrillahi te malaaka yooyu yëpp li tax ñi ànd ak jàmm bi mooy danañu ko wëttu kon aaya la yoo xamee ne dafa jëm rek ci wàllu aare aaya la yoo xam ne dafa jëm ci wàllu aar nit ki ba mu am kaaraange suñ borom ba tey indi inaa naxnu nasal naa sikra wa inaa lahu la xaafisoona moom it ci suuratul hijr la ne te suñ borom moo wax ne ñun yàlla alquran yi ñoo ko wàcce ci xolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu doon waar ci nit ñi waaye nag bu dee wuttu gi moom ñoo ko warlu bopp mooy wuttu gi li muy tekki mooy lan mooy wa inaa li qur wa inaa li qur'aana la haafisuuna min asiyaadati wa nuqsaani wa tabdili wa taxriif maanaam kenn mënu cee dolli loo xam ne yàlla deful ko ci kenn mënu ce wàññi ba génn ci loo xam ne yàlla def na ko ci kenn mënu ko def tabdil muy soppi ko mënoo cee jengal dara déedéet <laughs> gis nga def naa ne fu ne alquran ku ko bëggoon a yàq da nga sonn ndax boo ci dugalee lu ci bokkut gune gu ndaw mooy wax ne lii bokk ci alquran kon yàlla loolu bokk na ci mooy dënnab xale bi mu nekk loolu kon firndeel na yàlla moo ko ci dugg moo moo ko dugal ci dënnab xale ba mu mokkal ko waaw ndax tey bu nii xale bu la doon déglu boo yàqee mu xam ne yàq nga waaw nekku ne ki lay déglu sëriñ daara bi dalay bàyyi ngay wax di dem rek boo yàqee ba dan ko xam boo yàqee xaraf ba dan ko xam lépp kon loolu mooy ñoo koy wut dëgg la yàlla koy ci saay rek baatin waaye wuttu gi moom loolu da caa bokk ndax dong daara bi mokkal kaamil bi boo ci bëgg a dugal lu ci bokk mu la déedéet bokk ci kon mënoo ko soppi kon loolu rek moom ni ko yàlla dince ci biir dënn ñooñ alquran kon loolu bokk na ci wuttu gi te sëñ bi jàng na ci xasir yu bari muy wax ne alquran di yàlla wax ne moom la wàcce te moo koy wuttu nee na kooku ci sama jëmbu ji la koy wuttoo loolu kon firi mu leer la sëñ Tuubaa ne ci man la yàlla di wëttiyoo alquran kon gis nga ni mu mel ci alquran moom dégg nga ñaata nit ay mokkal alquran ñaata nit ci dongay sëriñ bi waxuma la njabootam wala ay dongam rek ñaata nit ñoo ci mokk alquran di wuttu alquran nga xam ne fu ñu mën a dem ci réew mi fu a dem ba gis alquran boo ca waxee loo xam ne bokkut ci alquran ñi mën koo daanoo si ne li bokkut ci. kon inaa naxnu lasiina nasal naa asal quraanu ala qalbi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam taskiran li naasi wa inaa lil quraani la xaafisoona mina siyaadati wa nuqusaani wa tabdil wa taxrim kon inaa naka ñun yàlla naxnu ñun nasal naa ñoo wàcce asikar alquran ci xolu yonent bi wa inaa te ñun la xaafisoon way wuttu lañ loxoo ñel niñ ko wàccee ci xol yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu lañ koy wutoo mooy kenn mënu cee dolli loo xamee ne defuñ ko ci kenn mënu ci génn loo xam ne ba tey def nañ ko ci kenn mënu koo tabdil wala nga koy taarifal kon loolu kenn mënu ko ci alxuraan gis nga kon aaya ji mi ngi nekk ci euh, suratul xijri mooy juróom-ñeenteelu aaya ci suratul xijri ba tey bii itam ci suratul xijri la nekk te mooy wa xafisnaha min kulli saytaanin rajim ba tey moom it mooy aaye fukkeelu aaye ak juróom-ñaar bu xafis naa min kulli seytaani rajim ba tey ci sóoratu hijr la nekk moog inaa nax nu nasal naa sikra wa inaa lahu laafisoona li muy teg rek mooy wa xafis naa sama abin kulli seytaanin matroodan an rahmatillahi rajim mooy matroodin min rahmatillahi suñ borom nee na ñoo wëttu asamaan yi ba saytaane du mën a yéeg mukk di sàcc déglu comme nañ daan def bu njëkk wala xat jaal fi samaa'i buroojan ñun yàlla ñoo def ci biir asamaan yi ay yoon yoon mooy yoon yi nga xamee ne dañoo nekk ci asamaan te bidiw yi ci la ñuy jaar di daw wasayenaaha li naasirin ñi rafetal asamaan ci ay bidiw ngir lan ñi koy xool bu ñu xoolee asamaan nag coy bidiw yi ko rafet waay burujan mooy manasila lil kawaatibi tansilu fiya maanaam bidiw yi fi ñuy wàccee fi ñuy dawee di jaar di wàcc kooku moo tudd burujan yàlla nag ñi ne ñoo ko def asamaan su ko defee rafetalee ko ay bidiw ku ko xool rek ne coy waay ko rafet waaye nag lu muy rafet rafet saytaane ma amul ci benn wàll benn cër mantu yëg bu foofu di sàcc déglu waa fis naa ñun yàlla ñoo ko wëttu min kulli seytaanin ci bépp seytaan rajim katakuñ jàmm wala sirmande yàlla ba nga xam ne seytaan yi duñ mën a yëg ci ko asaan mukk di sàcc déglu te dégg nga lam teg ci aaya ja kana ilaa tara istaraxa sama lu lu koo xam ne moom day sàcc déglu koo xam ne day sàcc déglu te bu sàccee déglu am na am am na lu koy xaar am na lu koy alak fa atba'ahu mu mubiin ay jum ñooy tàkk rek di ko lakk kon mu ngi noonu yàlla na musal ci mboolem xeet sayaatin yi ak nit ak sayaatin nit ak jinne yëpp barke alquraanil asiim ba tey mu indiwaat beneen aay bu nekk suuratul saafaat mooy juróom-ñaareelu aay bi te mooy wa hifsan min kulli seytaanin maaridin te mooy wa hafisnaa sama addunyaa ba tey mooy niñ ko firiwoon noon ci aay ji rek bi nu joomi min kulli seytaanin mutamarradin xaariji ani taati fa yurma biha yàlla nee na biñ sàkkee asamaan sii nga xam ne mooy asamaanu dunyaa dañ ciy def ay biddiw mu rafet lool waaye seytaan yi nga xam ne dañoo dañoo féttéerlu génn topp maanaam duñ mën a yéeg ci kaw asamaan yi di sàcc déglu lu dul rek dañ leen di sànni ay jum di lakk kon ñun yàlla ñëwatu asamaan si nga xam ne mooy asamaanu adduna si ci ay biddiw yoo xamee ne am na ay malaaka yu koy garde di ko wëttu nga xam ne saytaan yi yi nga xam ne dañoo génn topp duñ topp yàlla bu nara dem sàcc ji déglu rek dafa am ay jum ñuy takk di leen lakk kon ñun yàlla waxif san ñoo asamaan si yi nga xam ne mooy asamaanu duniya min kulli seytaanin ci bépp seytaane maari den bu di aji féttirlu féttirlu mooy xaariji ani taati maanaam seytaane goo xamee ne du topp yàlla dafa génn topp mooy lu yàlla tere rek kooku ci lay nekk waaye lu yàlla digle du ci nekk ba tey mu indi aaya bi nekk ci suratul fusilat te mooy wo hifsan saarika taqdirul azizil alim te yàlla lam doon nettali ba tey mooy loolu rek ay yëpp ñoo bokk lu ñu firi day wane rek aaya yo aaya hifsu lañ maanaam maanaam ku ko takk wala nga koy jàng lu mën doon rek yàlla da wut wuttu ci mboolem xeeti sayaatin yi ak mboolem xeeti jinni yi xeeti yàqkat yëpp kenn du la mën a lor ci àddina ñoom ay nga xam ne juróom-ñaari ay lañ benn bu ci nekk gis nga ko kon alquran bari na ay médicament bu dee gis nga ayatu sifa am na juróom benn ay yoo xam ne boo feebaree boo ko bolante fatiha bind ko boo ko naanee wér boo bëgg a sa bopp am na juróom juróom-ñaari ay yu lay aar naka noonu loo bëgg rek am na ay yu ci jëm yoo xamee ne boo ko tegalee nan nga ko a tegalee rek sunu borom wéral la tawat boobu. kon sunu borom nee na euh, fekk dafa daloon aaya ji fa qadaahunna sab'a samaawatin fi yawmayni wa awhaa fi kulli samaa'in amrahaa yàlla nee na biñ bindee juróom-ñaari asamaan dégg nga ci ñaari bis képp dégg nga dañoo wax yu bépp asamaan ak mbiri boppam lañ ca def ak la muy liggéey bam noppee nag wasayanaa sama addunyaa asamaan sii nag moom tiim ñi di àdduna dañ ko rafetale bi masaabiha waaw dañ koo rafetale bi masaabiha mooy ay biddiw yu leer waaye nag wa hifsan saalika taqdirul azizil alim mooy dañ koo sam sam goo xam ne maanaam seytaane du mën a yëg mukk di sàcc déglu waaw ndax loolu kat yàlla noonu la nattalee asamaan yi benn bu ci nekk ak lam ko wax yu ak la muy liggéey ñoom asamaan yi benn bu ci nekk am na lu la yàlla wax ak looy liggéey asamaan sii nag moom yàlla def ci ay bidiw nga xam ne benn saytaane du man a yëg di sàcc déglu ci yeneen asamaan yi dégg nga bu dee asamaan si gis nga ko weer yi moo nekk ci asamaanu ñeenteel bi weer yi nga gis asamaanu ñeenteel ci la nekk. kon wax ifsaan wattu nañ ko maanaam gannaaw bañ ko rafetalee ay bidiw ñiy takk ba mel ni ay làmp wax ifsaan ñi wattu ko saali ko lool nag yàlla def taqdiirul asiisi nattaleeg yàlla muy aji not ci kattanam la alxaliimi kay aji ay mbindaa foonam yépp loolu yàlla def asamaan muy def ci ay biddiw rafetal ko mel ni ay lamp yu tàkk boo ko boo ko gisee rek tabaarikàlla mu rafet lool yalla nee na dama ko wut. loolu nag def gi ma ko def asamaan si def ko yeneen asamaan yëpp benn bu ci nekk am ma am lu ma ko wax nee na nag sama nattale la sama nattale la nattale la maanaam benn bu ci nekk yàlla dafa nattale ne lii lay liggéey li ko tax a jóg nangam nangam dégg kon saari ko taqdirul aziz mooy nattaleeg yàlla muy aji not ci kàttanam alxalibi kadi aji xam kooku mooy taqdirul azizu mooy allazi laa yaxlubuhu ahadun al alimu bi xalqi mooy ki xam mboolem ay bideefa moom suñu borom subhaanahu wa taala kon gis nga ne lii juróom-ñaari aaya lañ benn aaya nag guddul ci dégg nga man nga ne sax man ngaa wax ne am na yoo xam ne matuñ aaye matuñ aaye waaye ay wax lu yuñ dajale yoo xam ne mooy ayatu hib si rek lu mel ni wala yow suma wala di xam nga boobu ci ayatu kursi la bokk dégg nga ci kursi la bokk aaya boppam mën nga ne aaya boppam la falaahu xayrun hifsan wa arhamu rahimina muy ñaar lahu muqibaatu min bayni yadayhi wa min xalfi yaxfasunahu min amrillahi muy ñett inaa nahnu nasalna sikra wa inaa lahu laafisun muy ñeent waafisnaha min kulli seytaani rajimin muy juróom wa hifsan min kulli seytaani maridi muy juróom benn wa hifsan saalika taqdirul asiisil alim muy juróom ñaar muy ayaatu hifsi muy ayaatu hifsi léegi ba tey mu indi aay ji nekk ci sóoratul buruuj te mooy ñeenteelu aaye in kullu nafsin lama alayha hafisun waaye dana indiwaat ba tey aaye ya mujj ci sóoratul buruuj te mu toll ci fukki aaye ak benn waaye bi may njëkk indi mooy ñeenteelu aaye bi te mooy in kullu nafsin lama alayha hafisun ba tey ci aayaatu hifsu yi la bokk rek yëpp yàlla day wane ne man yàlla man rek maa mën a aare may aare ba ci seen jëf sax ak li ngeen di def yebal na ay malaaka yoo xamee lépp lu ngeen def ci yiw wala safaan danañu ko bind kon ilu inkulu nafsin naka bépp bakkan lama alayha hafisun lurut yàlla wëkkil na ca bakkan boobee malaaka moo xamee ne moo koy wëttu maanaam ma min nafsin ila wakala laahu biha malakan yaxfasu alayha ahmaaluha lil xisaabi yowm alqiyaama amul benn bakkan waaw kon bakkan yépp day daal di dugg lurut yàlla wëkkil na ca bakkan boobee malaaka mu koy wëttu ba lum jëf rek xam na ko te ko bind te yowmal qiyaam daañu ko réglé in kullu nafsin lama mooy maa kullu nafsin ilaa xaafisun malakun yaxfasu ahmaala kon kenn ku nek li ngay jëf yàlla ba ko gisee ba noppi du tee yebal na ay malaaka yoo xam ne ñoo koy bind kon in kullu nafsin bépp bakkan rek lama alayha moom yàlla wakkil na ca bakkan boobee xaafisun malaaka mu koy wëttu loo mën a def ci safaan daañu ko bind loo mën a def ci yiw itam daañu ko bind ak lu mën a doon rek te dan la fa yëpp bisab yowmal qiyaam ba léegi nag mu teg ci inna batsa rabbika la sadid innahu huwa yubdi'u wa yu'idu wa huwa al-ghafurul wadudu sul arsil majid fa'aalun lima yurid kon bii moom ci suuratu taarix la nekk in kullu nafsin lama alayha hafisun moom ci suuratu la nekk yii mu ciy teg nag moom ci suuratul buruj la nekk te mu tàmbalee inna batsa rabbika la sadiidun inna batsa rabbika li muy tekki rek mooy inna aqasa rabbuka ayyuha rasulu li saalimi wa inna am xalahu hiinan la qawiyun batsa mooy intiqaam mooy koo xam ne day fayantoo loo def jaam dana ko fayu jaam bi nga xam ne moo ko sàkk boo ko mbugalee dana la mbugal ceeduna boo mbugalee jaam ceeduna dana dana fayeku ceeduna yowmal qiyaam boo ñëw itam kasaalek naka noonu ndax li taxoon yàlla wax inna barsa rabbika la sididun mooy xissa siw siiw boobu te gudd lool te muy nettali ci biir muy mbooloom ngaska ngaska ga te ñi xamoon ci jamono yonente yàlla Iisaa ñoo xam ne dañ daan tas ay kàmb di ci dugal ay nit ay fukki junne ak bi nit di leen ca lakk ngir lan lu ñuy ne gëm nañ yàlla rek waaye ñoom it yàlla bala ñuy faatu yàlla lakk na leen teg na leen natt mooy ñi lakk ñoom ñëpp ci na te bu yomul xayma danu ñu lakk ñañ doon lakk ñu doon ay julli nag ñoom bañ leen tabli safara rek yàlla nocc na tatanoos gay lakke ñi dee ndànk dem aljana ñoom nag safara oduna moo leen lakk ñi dee te bu yomal xayaamee yàlla neen daa leen tàbbal safara dégg nga xutila asaabul uxduud yàlla rëbb na leen kon ñoom ba bis pinc ba ñuy tàbbi safara rek yàlla rëbb na leen xutila asaabul uxduud yàlla bi mu nekk li xise ba noppi nag ne inna bat sa rabika naka fayontu naka fayuk sa borom naka fayuk sa borom naka ngëbuk sa borom naka kàttanuk sa borom la sadiidun ko lu tar la maanaam lépp looy def ba defee ne gisul la ay bu la téye léeg-léeg def dara rek mu téye ko ci àdduna ba xam ne yàllaa ko téye du ko muñal mukk yàlla moom bu la téye rek mu ngi noonu kon inna barsa rabbika naka fayantuk sa borom la sadiidun lu tar la mooy mbugalam rek xam nga yàlla moom ku jàpp loolu ci innahu naka yàlla moom huwa moom yubdi u mooy ku sos mbindeef yi ñu bàyyi ko ci tonkantal mën yi waaye wa yu'iidu mooy ki leen di dekkal dajalewaat seen yeex yëpp ñu nekk jëmu jëm pincam yàlla di ko wuyu ji bu ñu inoo huwa yubdi'u wo wal asaaba wa yu'iiduha wa yu'iiduhuma yubdi'u yaxluqul xalqa ibtidaa'an kenn ku nekk fi nga bàyyi ko cosaan la xamoo ko yàlla moo la sàkk yu'iidu nag mooy yuhyihim ba'da mawtihim mooy ki leen gannaaw bañ faatoo war a dekki mooy ki leen di dekkal gis nga ñaari yàlla day wane kattanam rek moo tax mu tudd innahu yubdi'u wa yu'iidu léegi tuddut leneen day wane rek doomu aadama fi mu béyee ak fi mu jëmaat mu ngi béy ko ci toqatal ma bu dee naka noon itam dana dem ba doon am ponkal dem ba màggat ñu rey ko dugal ko ci biir bàmmeel ba waxtu ñu neex ñi dekkalaat ko moo tax mu indi na indi xoo moom yàlla xoo moom yób di u mooy ko sox ñëpp ñu béy ko ci toqatal ma nii waaye wañu ay du mooy ki leen di dekkalaat gannaaw bañ faatoo woo moom yàlla mooy alxafooru mooy jégalaakoon bi al waduudu tey soppaakoon ab jaamam kooku mooy waxu alxafooru li sunu bi man taaba min ibaadi mooy kiy jéggal bàkkaaru képp ku tuub jëm ci moom moo lay jéggal ndax wa innahu yuhibbu awliyaa minal muttaqiina ndax bëgg na sopp na xaritam yi nga xam ne dañoo ragal yàlla mooy waxtu wu ne dañuy tudd dellu ci moom bu ñu ne alwaduud nag al muhibbu li awliyaa il mahbuubu lahum dafa am cofeel goo xam ne da koo sànni ci awliyaa yi sopp leen ko waaye awliyaa yi moom it dañ koy sopp mooy ñi xaritog yàlla mooy ñi sopp yàlla te yàlla sopp leen kon waxu moom yàlla alxafuur mooy jégalaakoon bi alwaduud tey soppaakoon ay xaritam ay xaritam ñuy sopp ko sool xarsi mooy borom xaras almajiidu xaras gay aji màgg almajid mooy lu tedd waaye mooy alancim rek saahibul arsil karim kooku mooy sol arsi kon yàlla moom moo aras gu màgg ga kon sol arsi mooy borom aras almajid ga daa ji màgg fahaalun defaa koon li maa lépp lu ko neex du tàggu dara lépp lu muy def kooku du ca diisoo kenn du ca tàggu kenn fahaalun li maa yuridoo min al an sunubi man saa nit ki bu defee bàkkaar su ko neexee jëfandikoo coobareem mbugal ko ca sansa bu ko neexee bañ a jëfandikoo coobareem bañ koo mbugal taxawee rek ci maanaam ci fadloom ci ngëneelam waaye lu ko neex rek def kooku kooku mooy fa'aalu limaa yuriidu mu wax yonent bi ne ko xala ataaka ndax maanaam xal di max naa xat ataaka xala ataaka dikkal na la xadiisul junoodi xebaaru lël ba te loolu mooy xal jaa aka ayyuha rasulu xabarul junoodi mooy allasiina tajjanadoo li muhaarabatil xaqi wa sadda anhu mooy ñi nga xam ne dañ doon liwutoog dëgg di xeex di xeex ak dëgg bëgg dëgg fii ti suuf te loolu mooy gaay firaawn yi moo tax man ko xala attaaka dikkal na la di maanaa xat attaaka xadiisul junoo di xebaaru lël ba te mooy firawna firawna laa wax wa samoode ak nitu samoode yee maanaam soldaar ya toppoon firawna ak ci bonteem ga ak soldaar ya toppoon samooda ci bonteem ga yow yonent bi xebaare fañ mujj fa ma leen alak mujj alak leen ñoom ñëpp ñii ma leen ci baxru xalsoom ñaama faat leen ñoom ñëpp xibaar boobee dikkal na la loolu yëpp day day day xub waa rek ngeen ñi bàyyi xel ne am na ñu fi jiitoon ku mel ni Firawna ak Samuud ak nitam ña dañoo weddi woon yàlla weddi yonent yi yàlla ak leen. Firawna wa sabar mooy asaabu Saalihu alayhi salaam gaa yi Samuud yi moom la suñu borom bi yónnul yonent yàlla Saalihu ñoo laajoon kawteef googu di gëlëm nga. bal li fi nekk àll si ne gaa ñi nga xam ne kafaroo weddi nañ fii takk si bin aji nekk lañ ci fen fenloo yonent bi ak di fen alquran bay ci yàlla muhiitun aji wër ndomb la min wara im seen gannaaw bal li fi nekk huwa moom alquran jii ñuy weddi ak yonent yi alquran jii ñuy weddi quraanun quraanun alquran la majidun gu tedd fii law nekk ca biir lawul mahfuus mahfuusun gadi guñ wëttu fii law mu nekk ci biir aloo mahfuusun gadi guñ wëttu yow yonentu sallallahu alayhi wa sallam ñii dee di weddi di la weddi muy waa màkk yi di weddi alquran ak la caaj kooku laysal maanihu min al imaani na annahum lam tahtihim axbaarul umumi al mukasibati wa ma xasala min ixlaaqihim bal hum yaksibuna bima jaahum bihim rusuluhum ittibaaxan li ahwaihim li tax ñi lay weddi weddi alquran mooy topp seen bànneex rek kon li am daal wa màkk yi ñi ñi ngi lay weddi ci li la yónni ngir topp seen bànneex waaye nañu xam ne mënuñu rëcc de walaahu muhiitun bi ahmaali muhsiha laa yafuutuhu mina sayun sayujasim alayha yàlla nee na li ñuy def lépp takk naa ko peeg naa ko te dara du ma ci rëcc nag danaa leen ko fay kon walaaw yàlla mu hiitun aji wër la ndombe bin war a im seen gannaaw la ngeen di jëf yëpp takk na ko xam na ko yéen ñi weddi yonent bi yëpp suñu borom nee ne xam na ko walaysa alquranu sihran wala sacaan alquran ji nag moom na ngeen xam ne du wëy du sacon kama yaqulul mukasiboona bal wa quranun karimin ndax dañ doon wax ne alquran ji kat luñ wëy la wala benn ñi sacon ko suñu borom ne déedéet tuumaal nañ ko sax yonent bi day dem ci benn xur ab ahjam yu di ko di ko jàngal loolu yëpp tuumaal nañ ko alxuraan te alxuraan ji ci yàlla rek la bay ko kon bal li fi nekk woo moom quraanun téere la majidun bu tedd fii lawxin mu nekk ci biit alawa manfoos yu gër guñ wattu ta dañ koo bind ca lawxul manfoos su ko defee nag kenn mënu koo soppi fii lawxin manfoos min a tabdili wa taxrifi wa naqsi wa siyaadati kenn mënu cee wàññi loo xam ne dañ ko ciy dugal kenn mënu cee dolli loo xam ne dugaluñ ko ci kon gis nga ne ay yooyu yëpp dafa jëm rek ci ayatul hifsi mooy képp ku koy jàng suñu borom dañ la wattu ci saahir ak ci baatin moo tax nag sëriñ bi teg ci hasbunallahu wa ni'mal wakiilu di wane rek kon aay yi képp ku koy jàng doyloo yàlla rek boo doyloo yàlla rek jeex na takk yàlla moo lay wut foo mën a nekk. hasbunallahu wa ni'mal wakiil xam ngeen ab aay la ci alquran képp ku koy jàng doo ragal mukk doo tiit mukk sa xol lépp luy ragal yàlla da ko ciy génne ba mu ci lan moo koy waral iman gi nekk ci yow waxtu ne day dolleeku say jëf yu baax waxtu ne day dolleeku ayal ju kéemaane te saxaaba yu ñoo ko waxoon yag fii naa laahu taala wa huwa nixwa man nu fa wadu ilayhi amruna yàlla moom ku ko jooyal sa bopp rek mu téye la te ku yàlla téye nag bokk te ku keneen téye kon mu ngi noonu doyloo yàlla mooy li wóor kon lépp loo mën a def rek yow mi takk ab téere bëgg aaru xamal ne yàlla lay aar yow miy jàng bëgg aaru yàlla lay aar bu defee ne mukk baat yooyu moo lay ar déedéet wala yaa aar sa bopp mucc nga delloo lépp ci yàlla mbir yëpp doyloo ko ci yàlla du tee yeneen loo mën a gis rek kooku xeeti sabab lay tudd kon xasbunaa doy nañu sëkk allahu yàlla wa nix ma amul morom alwakiilu yàlla léegi nag saa bu kaaraange amee rek léegi nag am na leneen luy am xam nga ne kaaraange bi amee léegi nag nga am jaasit yoo xamee ne kula la laal nga bojj ko mooy aay yii di ñëw nag moom aayu tàng yi kullama awxudo naaran lil xat bi at fa aha lahu nga xam ne léegi nag boo takkee téere boo xam ne mi ngi tudd kaaraange léegi nag li ngay bëgg mooy ku la liggéeyee rek mu këpp ci kawam léegi nag ay mam moom ku lay pexal rek maanaam ay ñoo jëm ci kaw kooku nga xam ne booy jàng ay yi képp ku lay la mere mer ma day dellu ci kawam ku la xas xas ba day dellu ci kawam ku lay tuumal tuumal ba day dellu ci kawam lépp lu la jaam yéene ci kaw suuf rek day dellu ci kawam mooy ay yi ñuy bëgg a firi te mi ngi tàmbale kullama awqudoo naaran lil harbi atfa'aha allahu ak waradallahu rabbin lam yanaalu xayran wa kafa allahu al mu'minina al qitaala wa kaana allahu xawiyyan la musul ci gépp pexe te aaya ji mi ngi nekke ci suuratul maida ñeent yàlla yàlla musal ci kon suñ borom day wax ne yonent bi waa matt yi safaraw xesiya wala maxnawiya safara suñ ko mos a tëralal rek xam nga bu ne safara jublu ci comme yow mi taal safara déedéet lu mel ni daaru nadwa daje gin daje di xalaat ni ñu rey yonent bi ba suñ borom wàcc wa is yamkuru bika llaziina kafaru liyusbituuka aw yaqtuluuka kooku safara wuñ fay la ndax seen yar moo tas ndax ki la noonu rek maanaam moo lay pexel te bu lay pexel mën na laa lakk mën na laa alak moo tax suñu borom tuddee ko naaran safara te fekk nekkul safara yi nga xamul ñu taal waaye képp ku la noonee noonee gi tudd safara tudd moo tax suñu borom ne kullama aw xodo ñoom waa Màkka waxtu wuñ taxalee naaran safara liir bi ngir xareeg yonent yi bëgg koo rey wala ñu génn ko Màkka at fa aha fay safara sa allahu yàlla yàlla ci boppam mooy fay safara wi kon yow booy jàng aaya ji xam ne képp ku lay noone pexe mum pexe rek bala nga yëg pexe ma yàlla moo koy fay yow doo yëg sa pexe ya kullama aw xodoo waxtu wuñ taxalee seeni ciini safara yi kullama aw xodoo bépp boo xamee ne taal nañ rek naaran safara ngir rey yonent bi te dañ ko doon waxtaanee ni ñu koy reye lil xar bi ngir xareeg moom jàmmaarloog moom at fa yàlla ci boppam moo koy fay bala yonent bi di ko yëg at fa fay ko bam fay kamas allahu yàlla kon loolu lu ko dax amut safara soo xamee yow ki ñu koy taalal yëgul ko waaye nag boromam moo fay mu te yahood yi dañoo taroon lool ci noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax suñu borom wax ko yonent bi sallallahu na ko ñi nga xam ne ñun yàlla ñoo sànni ci diggante ku yahood yi ak nooneel ak bañeel saa boo xamee dajee nañ ngir xareeg yow noonee la préparé ko taal safara su ko defee sattatallaahu jam jamahahum dañuy tasaare lañ lañ lañ taxal wa asxaaba quwatuhum nga xam ne dootuñ mën a taxalaat dañuy mujj tàyyi wala yasaaluuna yajtahiduun fi irtikaabi maa fiihi fasaadun fil ardi duñ dëñ mukk nag saa buñ fayee safara si duñ deñ mukk di toggale geneen yàq buñ la pexalee rek ba defee na mën nañ laa lor ñun yàlla ñi tasaare loolu dégg nga fil ardi mina sax yi li ib ibtaalil islaami wal kayduloo walaaw laa yubu ahlul fasaad te lépp dañoo bëgg rek lislaam dakk ñi doxal ak yàq ci suuf te yàlla bëggul kuy yàq yow yonent bi nag kon seetaan ñoo gaay rek yahud yi daal ak waa màkk yëpp ci duñ dëñ mukk luñ tay rek ñu tay ko te ñun na buñ tayee mënuñ koo tayyi kat ndax yàlla bu tayee kenn mëntu tayyi suñ tubaa ne taxe ba man araada an yan xuduma abro moo taxe ba man araada an yan xuduma abro moo man day foo lam ki bëgg a li yàlla tay kooku sonn na mooy mënu ko rek te yàlla nag lu jàmm pexe mën na ko dindi kon ñoom waa yahudi ak makka waa yifir makk yi dañoo bëggoon a fay lislaam di doxal pexe ak yàq te yàlla bëggul ku yàq ndax walaaw laa yubul fasaada yónent nag suñu borom na ko seetaan mag ñoom saa buñ taalee safara rek man maa koy fayal sama bopp moo tax yàlla ku bëgg bi sallallahu alayhi wasallam la yàlla alayhi mooy sunu kaw mukk ci ay di wara dallaahu lazina bi qaysi wa kafa llaahu lmuminina alqitaala wa kaana llaahu qawiyyan mooy xar bi abi sufyaan takkoon rek jullit ñi seen lim bu bëri bi jaay leen lool fekk boobu ñi ngi mere yonent bi mer wu tar bëgg koo rey bëgg koo faat ñi ne nañ dajeek moom ñoom waa Quraysh ak Xatfaan sun borom nag yàlla dogal ñoom abi sufyaan doon seeni njiit ba ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg a moom yàlla musal ko ci seeni mer mañ indaale ndax buñ dajoona yonent bi mën nañoo faat saxaaba yi lañuy bari bari nag fareba xarebe sax farut am nag ndax yàlla dafa mujj yebal ngelaw loo xam ne malaayka yi ñooy nekk ci biir ngelaw yi ñoom ñëpp ñi daal di daw ndax ngelaw gi ci boppam day buddi seeni xayma ya xayma yañ sampoon nekk fa ngelaw li dafa ñëw di ko daane di ko buddi ñoom ñëpp ñi daal di daw suñu borom musal yonente bi sallallahu alayhi wasallam di ko nettalil xéewal gi mu ko defal di wane na warada delloona allahu yàlla allazina gaa ñi nga xamee ne kafaroo wéet nañ bi xay suum seen meria lam yenaaloo ñoom kat faruñ am xayran yiw mooy liñ bëggoon mooy bu ñëwee rek rey yonente bi ndax ñoom lañ daan jàppi yiw dëgg la mooy buñ xarewaan jullit ñi gañ leen dañuy jàpp ne am nañ aw yiw ku ne xam ne ne yéeféer lay ndamam dëgg-dëgg mooy ma xeex ak jullit ba duma ko loolu yiw la ci moom donte ñoom jàppee nañ ko yiw waaye loolu du yiw waaye ñoom loolu gañaay la ci ñoom ndax sax gañaay la sax waaye bi yàlla yebalee malaaka ak ngelaw lu rëy ay malaaka yoo xam ne ci biir ngelaw yi seen xayma rek daal ñoom ñëpp ñu daw yóbbaale seen meer mi ngir yàlla moo dimbali yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba xare sax farut am loolu moo taxal suñu borom teg ci gannaaw bi mu ne wa kafallaahu almuminina alqitaal mu ngi ci jublu bi junoodin min almalaikati wa riihu lati baasa alayhim dégg nga maanaam yàlla li mu fegale yonent bi ba xare boobu ñu bëggoon a lal ta abi sufyaan jiitu ko farut am mooy soldaar ay maraaka ak ngalaw yuy riggi moom la yàlla yónni ñoom ñëpp ñu mujj tiit daw wa saalika yawmi abi sufyaan wal ansaabu raddallahu aba sufyan wa ashaabu bi qaysin lam yanaalu xayran kon abi sufyan ak ñi mu àndatoon ñëpp ngir bëgg ko mer mu rëy ñoom ñëpp kenn ku nekk yaa ngi mer yàlla moo delloo seen pexe ma waa Quraysh ñoom ñëpp pexe ma te mooy yàlla moom képp ku ànd ak moom mu dimbali la te yonent bi yàlla ànd ak saabaam yi moo tax nag yàlla dimbali ko te yàlla moom kenn mënu koo not yàlla moom ku mu bëgg not moom rek not la ku mu bëgg a jàppale yaay not mu ngi noonu moo tax yàlla yebal malaayka yi ak ngelaw yi ñu dàq leen ñoom ñëpp xar ba farut am moo tax suñu borom ne war a da delloo na allahu yàlla allasina gaa ñi nga xam ne na weddi nañ bi xay siim seen mer ya muy abi sufyaan jiite leen waa xuraysin abi sufyaan jiite leen faru am xayran yiw mooy lañ bëggoon mooy day bi yónente bi faat ko ray ko loo ko fa fegal ne allahu yàlla almuminina way gëm ñi dégg nga yàlla fegal na jullit ñi alxitaala ba xeex amut maanaam xam nga buñ xeexoon man ñee wala mën nañ leen di def jëf ju ne lu ne mën nañ leen ko def waaye yàlla far fegal leen sax xeex bi moom farut am yàlla wàcce nag musibam ngalaw ak ay malaaka ñi di leen dàq kon wakafa fegal na allahu yàlla almuminina way gëm ña xitaala xare ba xeex ba sax farut am ndax yàlla moo mujj yebal ngalaw ak malaaka rek saxaab saxaabay abi sufyaan yëpp daal di daw wakaana nekk na allahu yàlla xawiyaan di ajaam kattan xasiisan di aju not ci kattanam dégg nga kon li tax yàlla def ko ndax yàlla moo not ci kattanam mooy ki am kattan ku mu bëgg a not not la comme yàlla moo notal yonent bi sallallahu alayhi wasallam noon yooy nga xam ne abi sufyaan moo leen jiite te luñ bëggoon mooy faat yonent bi yàlla fegal ko ba xeex ba sa farut am kon war a da delloo na allahu yàlla allazina gaa ñi nga xam ne kafaroo dañoo weddi yàlla te waa Quraysh jiite ca dégg nga bi xay sim ànd ak seen mer ma ñoom ñëpp noonu lañ meraatee rek <laughs> am nga sa noonu boo xam ne dalaa mere ñëw bëgg laa faat ba noppi nag yàlla dollil ko ci beneen mbugalkat ndax dafa rijji ngelaw seen kaw mu topp leen ak ay malaaka ñoom daje wu yonent bi te am nañ bugulum mooy ngelaw li ak malaaka ya moo tax mu ne lam yanaalu amuñu xayran yiw waka fa fegal na alaaw yàlla almuminina way gëm ña alxitaala xeex ba ba far amut ndax wakaana nekk na alaaw yàlla xaw yéen di ay jaam kàttan xasiisan di aju not ci kàttanam yàlla moom kum jàpp la rek yaay daan kon wara dalaaw quraysin waqat faana wala siina maahum bi karbihim wa qammahum dégg nga li fawtihim maa amaloo lam yasfaroo bi maa araadoo ministère saali dañoo bëggoon a song yonent bi rek faat ko te booba nag ñi nga ànd ak seen mer ma yàlla far dawnoo seen mer moom na këpp ko seen kaw ba ko defee nag yàlla musal jullit ñi ba xeex ba am xam nga loolu moo dàq wa kafa laahul mu'miniina yow sa noon yi mbugal nañ leen ba noppi dajoo ñoom xam nga loolu dara dàqul ko wa kafa laahul mu'miniina al-qitaala ma'ahum bimaa arsaluu mina riihi wa anzaluu mina al-malaa'ikati ndax wa kaana Allaahu qawiyyan 'aziizan laa yuqaallibuu ahadun ilaa qalbahu wa qasaloo koo kon kookoy suñu borom subhanahu wa taala moo ko defal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon gis nga aaya jooju moom it borom xam-xam yi lu ne lañ ciy def maanaam booy génn sa boo ko jàngee maanaam aaya ji ni muy fi tekki rek loolu la yàlla defal mboolem say noon ku lay dencal mer kook du ngeen jàppante mukk waaw fu mu toll rek ci ku lay dëkk ay ay yu kéemaan rek maanaam ku koy jàng wara da dalaaw la ci ni gi saa booy génn sa kër jàng noonu boo mën a am ci yow du ngeen xuloo du ngeen xeex noonu gim la noonee yàlla këpp na ko ci kawam léegi nag mu jëmaat ci uf yi di am te ilaa ilaa butul bi baat ba tey moom ay ji jànfaru saadi waxoon na ne man daal yéem naa koo xamee ne ay nonam dañ koy pexe te xamut wu uf yi di am te ilaa ilaa butul bi baat na kanaa da koo xamut. mel ne hasbunallaahu wa ni'mal wakiil kanaa da koo xamut nee man yéem naa koo xamee ne ay noonam dañ koy pexal te xamut lii ndax ay ja la ca tegu moo tax ndax yàlla bim ne uf yi di am te lan la ci rek. fa waqaahu laahu sayaati maa makaroo gis nga maa makaroo firawna ba mu pexeel Moussa Moussa jël mbiram yëpp jooyal ko yàlla bàyyee ko yàlla a ah, yàlla dal de wàccee wàccee mbugal nag ca na may tooñ Moussa ma tax gis nga aaya ji maanaam day danoose pexem noonu aaya yëpp loolu ci lañ jëm kon wa ufu yi de danaa jooyal Moussa yi wax am ree sumay mbir ila laa jëmee ko ci yàlla ndax inna laa naka yàlla kat basirun aji gis la bi ne ay jaamam maanaam dara nëbbut ko ci jëfi ay jaamam wa ufuwiru mooy axtasimu wa aljaw wa tawakkalu ba ñu ufuwiru mooy koo xam ne dangaa ngooy ci yàlla wéedu ci moom wëkkiilu ci moom dangaa boole yëpp wéedoo gu wëkkiilu ci moom yëpp nga xam ne doo doo doo gestu leneen kooku mooy ufuwiru umóori kulliha ilallaahi waxdoo inna laa laa yafalu lii min axmaali ibaadi sayun yàlla gis na jëfi jaam yëpp lu jaam bi de pexal moru jaam yàlla gis na ko kon boo jooyalee sa mbir yàlla rek comme yàlla gis na ko moo la koy fekkal kon wa ufuwiru danaa jooyal amri sama mbir illaa jëmee ci yàlla inna laa naka yàlla basiirun aji gis la bi ibaadi ay ay ji rek fu ne saa boo wuuf yu di am rek illaa illaa bitul bi la baat yi gàtt na lool waaye ñeent fukki yoon rek wax ko ko kooku moom pexem noon moom it da nga ciy mucc boo ko boo ko boo ko saxoo saa boo jullee suba wax ko ñeent fukki yoon yow moom pexem noonu xaw ma kan waaye yow moom lépp luy pexe noonu suñu borom subhaanahu wa taala dana la musal ak noon bu mën a doon boo yëg ak mu teg ci laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zaalimiin ba tey Jaafar ba tey Jaafar ibnu Saadiq wax na ko mu ne man daal yéem naa koo xam ne day am ay njàqare rek xanaa gisut aaya di laa ilaaha illaa anta subhaanaka inni kuntu mina saalimiina ndax Yunus ma ko waxoon ci biir jën ji de ba ko waxee rek fastajabnaa la ci yàlla teg loo wane ginnaaw kon yow it njàqare boo mën a nekk booy wax laa ilaaha illaa anta subhaanaka inni kuntu mina saalimiina yàlla génn la ci njàqare lool. Jaafar ibnu Saadiq nee na daal yéem naa koo xamee ne day nekk ci biir ay njàqare maanaam te xamut laay ji laay koo xam doo jaaxle doo am ñàkk-ñàkk xool sax dégg nga ndax yàlla mi nga xam ne moo inkiwal wax ji yu nu taal ko waxee rek la génn ci jën ja laa ilaa amul benn buur ba yow jaamu jaamu ko du jur njëriñ ñàkk gaa jaamu ko du jur lool ilaa anta ndere yow yàlla subhaanaka tudd naa sag sell subhaanaka sëriñ naa lépp luy xeeti manqis lépp loo xam ne xeeti manqué la maa ngi la koy sëriñ di la takkal mboolem xeeti mat yi ini man yoonu sakat kuntu nekkoon amina salmin bokk ci way tooñ waaw kon ay ji képp koo xam ne da ngay faral di am njàqare jafe-jafe di ko dund ah del taqoo laa ilaa ilaa anta subhaanaka inni kuntu mina salimina dee ko taqoo même donte bis bu ne 40 yoon sax nga koy jàng dee ko toqoo waaw lim bëpp di ñeent fukk moom baax na ci lool laa ilaa ilaa anta subhaanaka wala ñeent fukk kook benn bis bu di ko wax laa ilaa ilaa anta subhaanaka inni kuntu mina zaalimiin kii xeeti tasbihaat fiituwul ko kaw tasbihaat sabbal yàlla maanaam fiituwul kaw sabbal gi kon laa ilaa amut benn buur ilaa anta ndereew kon saa boo ko waxee saxal nga ne yàlla rek yàlla subhaanaka nga ne tudd naa sax sell sërlal naa la lépp lu yellu ci yow mooy lépp luy xeeti manqué di daxal ko yàlla kon bi nga saxalee ne yàlla mooy yàlla nga ne kon lépp luy lépp loo xam ne xeeti manqué di la dégg nga sëriñ nga ko yàlla waaye ba noppi yow saxal nga ci sa bopp ne yow borom tooñaange nga borom bàkkaar nga ndax inni man kuntu nekkoon naa mi ne saar mi bokk ci way tooñ loolu képp ku ko wax jëmee ko ci yàlla day mel ni kon yàlla naan sama jaam bi na ma de te man jéggalaa kon laa kon nag dinaa ko jéggal mu teg ci inni xostu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakbirin laa yuminu bi yawmil hisaab inni xostu ba tey moom it diggante Moussa rek xam nga pexe moom mi ngi ëppee diggante Moussa ak Firawna moo tax ay yëpp seen diggante la woon ñoom ñaar inni xostu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin laa yu'minu bi yawmil hisaab fekk boobu li ko waraloon na Firawna a waxoon ne day rey Moussa bàyyi leen ma rek ma rey ko wa qaala Firawna suruni aqtul Moussa waaw su fekkee am na yàlla wal yad'u rabbahu na ñaan boromam waaye moom faaw danaa ko rey man na ndax li tax inni axaafu an yubdila diinakum diini ji ñi nekk damaa bañ mu soppi ko awa an yusira fi lati fasaa dama bañ mu yàq fii moom jàpp na ne Moussa li muy def yàq la ndek moom la def moo yàq léegi mu ne da koy rey bu ko neexee na ñaan borom bu fekkee am na borom waaye nag faali huma boromam mukk danaa ko rey danaa ko mbugal na ñaan boromam boromam mënu ci man dara ndax faali huma ko na ñaan boromam rek ndax man damaa ragal mu soppi sama nit su ko defee fii ñu fi ak yàq dégg nga Moussa ne wax Moussa ne inni man ci la Moussa waxee ne inni man nag yow Firawna na nga xam ne xostu maa ngi muslu bi rëb bi ci kàttanu sama borom wa rabbikum te mooy seen borom ba tey nag min kulli mutakabbirin ci képp kuy aji réylu laa yuminu koo xam ne gëmut bi yam saa bisub rek la ba ndax mi ngi ci jublu gaay firaw rek firaw na ci boppam ak ay gaayam ñoom gëmuñ bisab rek la ba gëmuñ yàlla Moussa ne kon maa ngi muslu sama borom te mooy seen borom ci képp kuy réy réylu te mooy ku mel ni rek nga xam ne gëmut bisub xisaab ba xam ngeen li ngeen di def nii bis dana ñëw ñi rek la leen ko kon nag su fekkoon ne gëm ngeen ne bis dana ñëw ñi rek la leen ko du ngeen ko def kon nag maa ngi mutlu sama borom ak seen borom te mooy seen borom sama borom moy seen borom bu ngeen ko nangoo bu ngeen ko nangut ci képp kuy rëy rëylu daal ndax rëy rëylu baaxut lu yàqu rek rëy ko yàq ku yàqule rek rëy la yàq mooy gis sa bopp koo xam ne gëmut bisam rek la ba daal maa ngi mutlu sama borom ci kookee kon gis nga ki gëmut yàlla gëmut bis penc kooku jar naa muslu de gis nga Moussa nii la ko musloo min ku li mu takk benn ku rëylu war nga cee muslu saa boo laa yomin bi yomin xisaab ndax ku rëy rek mëntu gëm bisu xisaab ba moo tax Moussa alayhi salaam lama alima bi tahdidi firawna lahu bi ko firawna xuppe xuppee ngir bëgg ko rey dana inni altajantu wa tasamtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin an laq man kat damay wéedu mooy ci sama borom ci képp kuy rëy rëy lu wëlis nga xam ne boo ko waxee dëgg du ko dégg mukk te ba noppi day jël jaasi na dalay rey maa ngi wéedu man ci borom di muslu ci kookee wal imaani bi laa yuminu bi yawmil qiyaamati wa maa fiihi min isaabin wa maa ngi muslu sama borom ci képp kuy rëy rëy koo xamee ne bisub yawmal qiyaam bi de gëmul ne bu ñëwee yàlla dana régler jaam ñi ñee dem aljana mu yóbbu leen fa ñee dem safara mu yóbbu leen fa gën nga xonstu mooy istajartu mooy xettalikoo rek ci sama borom comme firaw ne nee na da koy rey Moussa ne man nag ki may xettalikoo ci sama borom te mooy seen borom mooy yàlla bu ma xettalikoo ci ma mu xettali ma ba lii nga bëgg programme mooy rey ba du mën a nekk kon ini man xonstu danaa mosu mooy danaa xettaliko rek bi rek bi sama borom wara bi kum te mooy seen borom min